dal leen ak jàmm ci yenn kaay yi kaddu sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides moo gën a fës ci yenn kaay yi ginnaaw bi mu ci immigration clandestine wala tukki gu jaarul yoon sëñ Mountakha di non di li ñuy fekk ci xëtu njëkk yenn kaay enquête ngir xam leen sëñ Mountakha àndut benn yoon ak tukki gu jaarul yoon ñu ubbi yenn kaay réew mi quotidien mi xam leen sëñ Mountakha Mbacké nee ndaw yooyu leen di jël gaal yi dañuy xaru te buñ deewee safara leen jëm baax saa wala baax saak c'est haram di ay kaddu sëñ Mountakha yu ñuy si Vox Populi sëñ Mountakha nag yemut foofu ndax xamle na ni ñàkk nañ lu toll si ñaari fukki taalibe ñi nga xamante ne ci benn dëkk lañ bokk sëñ Mountakha jaarale kaddu yooyu si porte parole bi di sëñ Bass Abdou Khadre mi jano woon ak taskati xibaar yi dem si ngoon si immigration clandestine boobu la ñuy des ubbi yenn kay la tribune mi xamle ni ab gaal moo suuxaatu nekk na si lu toll ni téeméer ak fanweer ak ñett doomi aadama te si gaal boobee nekkoon na si xale bi nga xamante ne fukk ak juróomi at la amoon na ñu soppi wax si politique ibbi yenn kaay direct news mi ñëwaat si naka la Macky di falee jëwriñam yi yenn kaay bi ñëwaat na si tekki ndombal tànk Pape Abdoulaye Seck yenn kaay bu tey yemut foofu ñëw na si li Mansour Faye remplacé Omar Youm si wàllu dembeek dikk bi Cheikh Omar Anne mi remplacé woon Marito Niane Diouf Sarr jëlaatoon poste Eva Marie Coll Seck Aly Ngouille ginnaaw bu mu wala ginnaaw bu xeexee corona ba daan ko Macky Sall nee na ko aawat photo Idrissa Seck muy siiñ moom la njëkk yenn kaay la solo yi Idriss xamle na ni gis na lonkaloom ginnaaw bu mu demee man ko président Macky Sall man ak Macky Sall nekk na ba tey lu jaaxal réewum Sénégal wala askanu Sénégal jamono gi nekk ni di ay kàddu yéen kaay libération yéen kaay front de terre Walf Quotidien xamle na ni Idi nee na Macky tànnoon na ko yàgg na l'observateur moom Khalifa Sall ak li muy waajal moom lay laajte jamono jii de ki nekkoon maire de am na lu muy waajal te kenn xamagu ko source a di def xel ñaar diggante Manko Khalifa Sall ak kii di Ousmane Sonko loolu la waxal ñu def seen xëtu njëkk photo ñaar ñooñee ñu ñuyante ñu ndar keppee ko ci wàllum tàggat yaram ginnaaw bu réew mi sport ñëwaate ci victoire wala ndam bi nga xamante ne gaynde Sénégal yi am nañ ko foofu ca Guinée loolu la waxal sa yenn kay stade ñëw di ñu xamle ni gaynde Sénégal yooyu de ñoom ak Aliou Cissé daal dinañ qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations génnub àdduna kii di Balla Gaye numéro 1 ni ki fukki fan ak juróom weeru novembre ñi ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm